ci dem France bi moom laay bëgg a dellusiwaat ndax euh, li ko yóbboon France du loolu euh, France dafa nemoon dafa doon guerre ak Allemagne 1914 euh, Sénégal demoon wallu ko yóbbu fa ay nit akub dund. ba France gagné gagné googu lañ doon feetu téeméeri atam. Hmm. kon jàpp naa ne Sénégal war na fa taxaw parce que Sénégal bokk na ci ñi tax France Allemagne dominé ko ba léegi. mu profité ci loolu dem ci France ñu na ci benn euh, télévision. Hmm. ñu laaj ko mbirum Karim Wade ak mbirum Khalifa Sall mu wax ci la mu ca xalaat. Euh, du ma tontu fi nga may laaje gis nga dafa am ñett yëf yoo xam ne dafa mat a jàng. ñun waa Sénégal dañ ko war a jàng. Mm-hmm. ñetti nit war nañu ñetti yëf yu ñu war a jàng. Karim Wade bi bàyyam nekkee daanaka moo nekkoon vice président de la république du Sénégal loolu moo garaaw ñu dénk lam réew nga jël sa doom daanaka teg ko sa place bi bi la waa réew mi teg benn ñaar ñu dénk sa bàyyam réew. nga jël lépp aakimoo ko loolu mooy lu li bon loolu mooy li nga xam ne dañ ko war a dindi définitivement ci réew mi jàpp naa ne su fekkente ne condamne euh, jugement Karim Wade jàpp mu ak tëj gi ko tëj dindiwul loolu ci sunu ni ñu doxalee su boobaa li may gëm mooy jàpp Karim Wade gi amul njëriñ benn Khalifa Sall maire de la capitale du Sénégal ñu fal ko falaat ko ku wax dëgg ku ne na xam nga ne gis nga maanaam li ñu ko jàppee lépp moo ko def moom moo signé ci biir loxaam téeméer ak fanweer ak fukk ci ay fausse weer wu dee ñu gin mu signé fausse facture ñu jokk fanweeri million ci xaalisu mairie Ndakaaru jàpp naa ne lu mel noonu bu fekkee jàpp gi ñu ko jàpp tëj ko taxul mu dañ kon tëjoon gi amul njëriñ bi ci des ku mel ne sari bu euh, ki tey bu njaay nekk un haut fonctionnaire état jàngal la recruter la di la fay weer bu baax nga ba nga jël loolu lépp bàyyi ko denc di tibb ci alalu réew mi bañ di la jàpp ci de euh, enrichissement illicite maanaam loolu li li ñu ci mën a jàng mooy un haut fonctionnaire la mu war a yittewoo mooy servir le pays et non se servir lui-même su fekkente ne ñett ñii li ñu def. lii jànguñu ñu ne Sénégal am na jàngoro ci ñi koy defal politique am na jàngoro ci ay hauts fonctionnaires c'est que c'est pas la peine. kon man loolu mooy tontu bu njëkk bi ñu mooy con toujours Sénégal am réew la réew mi ci ay yoon lay dox président de la République do sañ-sañ yi mu am ci constitution bi la nekk. constitution moo ko may bu ñu tëjee nit peine définitive mu gracier ko defal na ko Karim Wade. am na ci droit lu mel ni am si nag mbirum assemblée nationale la bu loolu demee ba taxawee dana wax danaa wax li ma ci xalaat. waa am na ak grâce daanaka am nañu tuuti différence. bokkuñu. Euh, amnistie assemblée rek a koy def. si grâce am président mën na ñu am nañu différence. Ah. waaye bu ko président mayee grâce est-ce que loolu tekkiwul ne lu ñu ko toppee woon yëpp daanaka. daal euh, xaw nañu ko teg ci suuf ci yoon rek. waaw euh, monsieur Karim dañ koo tëj ñaari ci ñaari yëpp lañ ko lañ ko daan benn bi dañ koo daan ne ko da nga tëdd kaso. Euh, juróom-benni benn bi ñu daan ko ne ko da nga fay nangami milliards réew mi. Hmm. président la grâce bi mu ko def. Hmm. mooy grâce yi ne ko ci tëddum kaso mi waaye président bi mun koo gracier ci fay li nga xam ne moom la war a fay réew mi. waaw loolu moom gracier wu ko ci. loolu nag amnistie mën na koo dindi waaye grâce mën na koo dindi. léegi kon lan moo taxoon mu bàyyi ko mu dem. ah bu nga xamee ne war na fay amande. déedéet déedéet xam nga mën ngaa gracier nit ki bàyyi ko xam nga euh, maanaam bàyyi du tee mu yow par exemple tey bu la nit bu bu la nit yoraloon bor ngeen dem ngeen dem tribunal ñu àtte ko ba ne ko yow da ngaa war a fay diw mais yow mu génn kaso sax moo la moo war a ci yow ngir mu la fayee. mais mën na ko gracier ne ko mais waroo génn ci réew mi. ah déet déet déet tant que ah, sa amande ko loolu sañu ko moom mën na ko gracier waaye mënu ko ne doo génn réew moom. kon Karim amul benn yoon bu may président li mu ne diw doo génn réew mi. kon Karim Karim. kenn euh, exilé wu ko moo demal boppam Qatar dem toog dégg naa léegi ñu ne mi ngi ñëw kay ginnaaw nee na mi ngi ñëw kay kon kenn exilé ko waa PDS nee na mi ngi ñëw. léegi léegi lan moo tax président. ci sortie bu mu mujjee def. muy lié le retour de Karim Wade à la président de 2019. non non loolu xamul tax waaye li ma la mën a li ma la mën a leeral mooy li ma jàpp ci li mu wax daf ne su ñëwee liñ ko daan ci alal dina ko fay. Hmm. su ko fay nag daa am lu yoon prévoir bu la nit yoralee xaalis. ñu condamné ko da nga daa ah war a fay nangam su fekkente ne même am nga liberté provisoire wala nga am grâce bor bi moom mi ngi ci sa léegi su fekkente ne nag neex yo neex na yoon mu wala nga la fayal soo mënta fay mën la demal tëddaat ci kaso bi. loolu muy li taw di wax contrainte par corps. yoon moo ko prévoir du Macky Sall moo koy def contrainte par corps. yoon moo prévoir ni nit ki bu ñu ko daanee alal te fayu ko mën nañ mën nañ ko yóbbuwaat. ci kaso bi mën naa ko may amnistie mais loolu pour mu mën a nekk il faut que. élection présidentielle. mais waxewu nga ko de waxewul bu fekkee pour mu amnistie ko il faut que mu. non non non su ma faluwaatee. waaw mais mais loolu loolu waxin la. ah déet ah kon waaw léegi non non. waxin la waxin la rek waaye ñun adduna bi yëpp dafa dégg ci waxu Macky Sall la. déet déet bu mag la. waaw après. ñoo njëkkee titre après France 24. mais alors Macky nee na. waaw. pour ñu gracifier mag kii may am na si Khalifa ak Karim. waaw ñaari ñi la boole te bokkuñu. waaw lu ñu leen euh, tëjee prison. foog ñu romb présidentielle bi. la moo tax mu statué ko après la présidentielle bi. xam nga yow li si def Sénégal ko dàq. yow li BBC def Sénégal moo ko dàq yow gis nga booy déglu Macky Sall muy wax la nga mën a xam ci waxam waa BBC mën nañu ko ñu xam. léegi yow lan nga jàngat ci waxu Macky li ma jàpp mooy li mu wax ne. bu waa ji def ko laaj ne ko est-ce que maanaam maanaam mbirum ay xam nga gracier na kenn ba pare xalifa moom mën na su ko gracier parce que tribunal bi paregul ci moom mu wax ne moom bu fekkente ne dafa faluwaat nga xam ne beneen buntu la ñu ubbiwaat ci réew mi daxul ñu am ni seekari wadd mais après la présidentielle. mais bien sûr loolu daal mooy faluwaat kay bu faluwaat kay mais après la présidentielle loolu loolu maanaam li mu sañ man problème c'est-à-dire mooy moom euh, bu fekkee faluwaat na. dàqul mu am ni amnistie ak monsieur Karim Wade. wala hmm. peut-être bu fekkee Khalifa am na peine définitive mu ñu boole ko ci. d'accord man personnellement en tout cas su fekkoonte ne maanaam maay dogal. jàpp naa ne euh, lu baax la parce que même garage bi moom am na ñu a naqari woon mais man personnellement gisuma ci benn ayib parce que man jàpp naa nit ki même bu fekkee ne dafa tooñ réew mi aussi réew mi war naa mën a jégali. kon war nañu ko mën a baal euh, cent trente huit milliards mais lien bi laay ba ñu tudd ko de Macky waaw nee na bu bu nañ ko bàyyi ba mu toogaat xam nga waa Karim Wade waa PDS du ñoom ñoo fi bàyyi Macky waa PDS du ñoo fi jëlee Macky Sall Sénégal waa Sénégal ñoo fi bàyyi Macky Sall wala ñoo ko fi jëlee kon mënul lii ne pour pour ma maanaam palaat leen ma ngir ma baal Karim Wade déedéet daan ne palaat leen ma ngir li ma liggéey sumb ma àggale ko.